mi ngi noonu alaaji saa wolof nee na ñeel <coughs> saa mu jox ma mbaxanaam mi sol. waaw ah, amul problème nee na <laughs> saa wolof ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. <coughs> gaa yi xar yi ñoom ñu ngi réagir. ba <laughs> léegi am na waa joo xam nee na fekk si na nee na fekk si na ma xar mi ñu wane bu ci président <coughs> nee na boo indee cent soixante dix mu jënd ko léegi moom yokk na ci vingt mille. waaw nee na cent nee na saa nee na ko bu nee ko bu yoree. cent cinquante non xam nga kooku mooy lan. mooy ñi nga xam ne dangay ngay dem yanam xar ba ñëw indi mën ngaa indi sax bu ëpp président ñaan noonu mel tolloon na bi du na la kii xam nga la du weesu lii sim xar. xam nga dama dégg ñu ne El Hadj Moussa da doon wax ba ci yàgg mu ne ku daggee ci làng gi ñëw. wax ma ma wax ñëw ci man boo mënu ma wax la li xalaat waa ji ñëw ne ko jàpp loxo ne ko lan laay xalaat mu ne ko waxloo ma lu amut. waa jox ko loxo rek yaay ngand parce que weddi ko donc la mën a xalaat <laughs> maanaam kii fi mu bu ma yemoon yenn ji ngand dama xar ñëw ne ko xar mi nangam mu ne ma waaye saay <laughs> xoolal béjjën bi melul ni bee non bu ko jël jënd ko ma xam naa li ma la wax bu ñëwee ma jël ko xam naa li ma la wax dama jëndi jëlee sa cent cinquante mille bul ko weesu kan challenge bi fexe cee cent cinquante mille xar mu baax ngay am waaw hmm. baax xar yi xar yu màggat lañ xar yi seen xar yi ñu yox kii cent boo ko bindaay da ngay sonn top daal li may wax sama nopp bi daal buñ buñ buñ demee publicité ma wax la ko xar yu bari yoo xamante ne bi dañuy top daal sa doom ji daal hmm. li may wax sama nopp bi buñ demee publicité ma wax la ko xar ne dañuy màggata màggata màggata eh, xar yi nga xamante ne dañ gétt gu ne <laughs> la muy tabaski noonu di xam nga loo ci xamul xar yi nga xam ne gétt gu ne wër nañ ko njaaloo fa dem <laughs> gétt gétt gu ne <laughs> gétt gu ne xaru kii rek la jël bindaay pour yàlla gisoo xar yooyu seen kii gisoo. tës gi xar mu musta njaaloo ba. <laughs> saa yaawal yi. am nañ def ci gétt gu ne. xar yi njaaloo waay xam nga fekk yow xar mii nga yor. kër goo romb rek gétt gi ne xamoon naa ko xar maa ngi naan fii rek gétt gi ne jaar jaaloo na fa. <laughs> gétt gu ne jaar na fa. <laughs> Euh, kii nee na ma sooy ba asan fu mu dëkk ci Touba dama koo xama lu si laaj dama koo xama asan yow asan nag li ma man man asan mii man baaxuma de waruma xam bi nga dëkk ci Touba. ah nee ko ginnaaw kër sëñ am sa mu sëñ Abdou Lahad ah boo ko waxee loolu non dafa bëgg xam ne wax mais ba ginnaaw kër foofu nga dëkk kon waaw ginnaaw ko sëñ am sa mu sëñ Abdou Lahad foofu